Ahmed Aïdara bismillah ko xamul bur dee na a ah. xam bur saay na loolay dëgg tribune yéene kaay de Yaya Jammeh a ah. wax na lu leer ah. Yaya Jammeh nee na kon fukki fan ak juróom ñeent ci weeru janvier day le ma ne la duñ fa samp benn président eh way samba nee na investiture dafa am de ma ne la Yaya Jammeh day waaw daa mel ni daa reeb laa la wax daa mel fi mu nekk ne dee moo ko gënal waaw ci kanamu kon ërtël ci pression bi nga xam ne kon moom la communauté internationale bi day waa bitim réew yëpp def ci kawam daal di sàkku ci Yaya Jammeh moomee waaw mu daal jël na nguur ko kon daal di koy jëbal kii di Adama Barrow loolay dëgg Yaya Jammeh day waaw li wax def ko ci day lu leer la uh-huh. waaw nee na même bu dee sax kon nag may xoxota laa lay wax ni la day naan nañ fi indi ay militaire lu ni mel waaw loolee du tax mu jóge fii laa la wax <laughs> eh, way Samba Jammeh wax de eh. baabali man saa ne ma fi jóge lu mooy kalaame bi nga xam ne ko day ci kanamu tribunal bi nee ma cour suprême bu Gambie be waaw du fi jóge lu mooy kalaame Yaya Jammeh boobu day waaw gaañaa nga ca parce que atakatug Nigéria ak siyaarale woon waaw ni ngi leen di xaar nag ci diwaanu Banjul goo gaye laataam fukki fan kon ci weeru janvier tey lii termine yéene ko may ma ma may ma ma ak lu ci mënti xew waaw Yaya Jammeh day ma ngay continuer ba léegi ni leen di kaas ne résultat daal andu cax uh-huh. Yaya Jammeh kay dem na sax ba naan ëllëgu Gambie kenn du ko dogalee ca Paris kay ma keeg Hollande nga xam ne moom laa am kan moo am ndam yaa nee na moo gañe moo jum wala maa jum yéene kaa gi ne njiitu réew yu CEDEAO waaw daal dina ñuy sàkku nag ca yaa jame day mu jéebal nguur ga kon kii di Adama Barrow mi nga xam ne moo gañe te looloy dëgg Marcel de Souza CEDEAO Afrique sowu jant waaw nee mbooleem réew CEDEAO pare nañu ñëpp taxaw nañ la dee ngir bu dee yaa jame kon dafa bañ ne du joxe nguur ga uh-huh. ma ne la soldat yi pare nañu laa lay wax ni la day ngir intervention militaire marti itali la ilaha illallah Macky Sall yëkkati nag am discours danañu wax lal ko ci wàllu njàmm jàmm rek de ngir ñu joxe kon nguur ga te jàmm mu bañ a am kon benn fitna waaye bu dee nag yaa jàmme kon daa siisu day ne du joxe nguur ga waaw danañu ko kon yaa jàmme laa la wax seen conseil de sécurité ba waaw daal dinañuy xamal carrément jàmme ne ko na joxe nguur ga na jox nguur ga Adama Barrow nga xam ne kon moom moo gagné fukki fan ak juróom ñeent 19 yée gën a sori comme ni ko constitution bu Gambie kon santaane waaye yaa jàmme day nee na jugeewu fa tey te jugeewu fa ëllëg baaba li man sa te jamono jooje suñu ba sanga Paris l'observateur ne docteur honoris causa lañ ko ko sonal waaw termine yéene kaay ne ba day mbir ma seet doon lool waaye amal nañ seen ndoxu ñax bi doon wax de ñoo ko wax def ma ne la wax moom Déthié Fall moomee ah naqarlu a jàppee ko visite d'état waaye a Seck ji nee na doxantu la promenade la doxantu la Macky Sall nekkee ca Champs-Élysées ngir ay teraange wu France ginnaaw ay marché yoo xam ne nag maanaam moom Macky ah ngi fi di bëggal dee dégg yaa ngi nii amuñu liggéey ah chômage dégg ca Fall ne waaw ma ne la xoolal leen ma système sanitaire wàllu wér-gu-yaram gee gën a feebar ñi nga xam ne dañoo feebar te war a dem kon te wàllu wér-gu-yaram nga xoolal ma wàllu njàng meeg njàng la mi yéene kaay nee na ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di ŋàññ demu Macky Sall ba kon ca fari jé visite d'état waaw ma ne la ñoo ñee xamuñu dara Ibrahima Thiam boo gis-gis ci réew mi quotidien ne président Macky Sall kay waaw nekkul ci visite d'état dé ca France déedéet Macky Sall kay convocation lañ ko bindal président France def lu ni mel François Hollande Macky Sall dem wuyu ji dañu koo convoqué ca France waaye du visite d'état ndax français yi kat dañoo mer lool ko de waaye Papa Diop ci bokk gis-gis caam nee keroog biñu gisee kon pétrole Sénégal ba léegi ni lée waaw gouvernement France daa lool ci chantier yi rek laa wax ak na nga xam ne noonu nee ñu séddalee kon pétrole bi daal koy jël jox chinois yi ak américain mooy xaritu Aline Sall waaw na ko Macky Sall ja Macky Sall député yo Sud Quotidien ne élection député 2017 waaw ñaata député war a dem ci assemblée foofu la guerre waa manko day opposition bi eh ak juróom benn fukk ci ay député cent soixante libération yi ne kay ne en tout cas njiitu premier ministre bi lé Mohamed Boun Abdallah Dionne lu baax nee na Dionne excellent liggéeykat bi libération yi ne kay gi ci lu jëm alal ji lewul day nee ma tarak baax colonel baax douanier waa ki day bindal nañ ko leetar de mise en demeure fan lañu ko may ngir mu indi ay gindi ne ci genn wàllu milliard yi nga kon moom la am marti weeru novembre 2013 fan la ko waa ji jëlee yéene kaa gi ne Tumba Jakite waaw ma nga doon dund na ci cité El si ñetti atu yàllaa ngi ni le maître Baba Diop avocat waaw nee na bu tëddee nelaw parce deful dara amul dara luñ koy toppe vox populi ne xeex xam ne nag ñi ngi am kon ci jumaa ak jàkka yi ak bërëbu jaamukaay mi ngi bëgg a ëpp bu mujj bi ci fan ok yi la xewe ah. imaam Alassane Diop waaw moo jàpp génn ah. na man daal fii sa place ma ne ko jumaa daal amul place nay mba xëcc ma xiiroo mu dóor may kur fañ ba maar dég daal li moo tax ma porté ko plainte dem ca lamb jë tribune sa ne li Nicolas day ginnaaw ndamam la na ca cour waaw xëj na mu jàppale bunkal yi amagul combat ay Gris Bordeaux Balla Gaye ay Tapha Tine Assane Ndiaye day la janvier la jox gars yi nag maanaam rendez-vous ne promoteur day waaw du mbir mi temps yi moom daa dëgër seen côté daa ci wóol doy na waar <laughs> alaaji non nañ téye rek dina baax parce que xam nga réew mi ngi dox mu ngi daw te incha allah ci naaw la jëm émergence non réew mi ngi dox moo tax ma la alaaji tëjal